ni y a eu des des des euh, euh, des accords wala des consensus nuñ ko mën a woowee yu yu xaw a large am yeneen yoo xam ne amul consensus damay ñëw ci am consensus ak li nga xam ne bokk na ci loo xam ne war nañu ko soppi en tant que justiciable buñ la waxee ne la dinañu xaw a wàññi pouvoir du procureur tant que justiciable ñu ne la léegi dina am benn juge des euh, peines ak liberté boo xamee ne dañ ko fiy teg euh, di nga applaudir en tant que justiciable ñu wax la ne la fii ñu toll nii ci lu jëm ci wàllu yoon dinañu gën a humaniser lu soxal par exemple mbirum euh, détention carcérale yeeg yu ni mel da ngay applaudir en tant que justiciable ñu ne la léegi mënatuñu téye nit ci yenn diir yu yu gudd te duñu ko àtte da ngay applaudir mais di nga gis loo xamante tamit seen une réalité mooy le nombre je dire très limité de magistrats yi nga xamee ne am na fi greffier yi fan yee passé génne nañu benn ci bi ñuy tàmbali assises yi ñoom tamit seen xalaat par rapport ak nu ñu war a dérouler assises yi ak ñoom la ñu soxla tey li war a am mooy fexe ba ñu mën a am euh, benn ratio ci wàllu magistrat bu acceptable ci ci Sénégal ndax bu ñu la nee ni eh, benn magistrat ngay am pour plus de cent mille sénégalais euh, ëpp na ko sax euh, ci chiffres yi ñu génne démb mais da nga naan mais finalement par rapport ak yeneen i dëkk yi am ay magistrat ci àdduna bi da ngay xool ne ni ratio boobu ndaw na loolu moo waral souvent lan lañ lay wax ne la magistrat yi dañ leen di jóor ay ay dossier du ñu am taxawu xool dossier yëpp ba moo waral ñu bari ñu leen di bàyyi ci kaso bi pour euh, euh, benn durée bu xaw a gudd loolu yëpp je pense que euh, ci biir waxtaan bi nga xamee ne amoon nañu ko amoon na ñaari format format wu professionnel yi nga xamee ni xam nañu lu jëm ci wàllu yoon am beneen format boo xamee ni daanaka wax sa xalaat la boo xamee ni sénégalais bi ci boppam mooy wax xalaatam par rapport ak euh, la muy dund ak euh, li nga xamee ni moom la koy gis si wàllug assises yi euh, waaye leneen mooy li nga xamee ne amuñu ci convergence amuñu ci consensus benn bi ci ëpp importance mooy mbirub conseil supérieur de la magistrature ñuy wax ci ndegam. président da ko war a teewe wala waru ko teewe ñenn ñi ne ni non naka teewe ñeneen ñi ne c'est pas la peine mën na délégué parce que moom ci boppam moo bindoon ci euh, conclusion wu li nga xam ni moom mooy ci euh, wàllu programme am Diomaye président ne ni y aura un retrait de l'exécutif ci judiciaire rawatina ci lu jëm ci wàllu conseil supérieur la magistrature am na démb ku moo dégg muy wax ne euh, bu ñu pousse le président Euh, di ko wutal prétexte pour se renier par rapport ak kàddu googu nga xam yëg toon na ko ne ni bëggatul sax di bokk ci conseil supérieur la magistrature même s'il n'y a pas consensus j'ai vu que les journaux disent que finalement euh, la patat chaude ou la balle et dans le camp du président Bassirou Diomaye fay mais na assumer nu muy assumer mooy lan yéen def ngeen seeni assise ci ni ñu ko sàkkoo am na loo xamee ni ca 2018 waxoon nañu ko tey am na loo xamee ni wax nañu ko waaye consensus amul kon maa war a àtte ci wàll woowu nag en tant que président la may jàpp mooy je sors du conseil supérieur la magistrature organe bi ñu wax ne ni dafa doon war a doon benn organe buy délibéré bañ a doon organe consultation kese muy conseil supérieur la magistrature nañ ko jox gëddu délibération boobu ñoom seen biir nañu tànn ci seen biir naka lay doxee te man ma génn ci sama loxo peut-être mën naa leen yebal euh, ku ci mel ni par exemple le ministère de la justice pour mu doon pont bi ba nga xamee yéen la ngeen di soxla jaare leen ko ci ministère de la justice mu àggee ma ko man en tant que ki jiite exécutif parce que quoi qu'on puisse dire tamit le président de la république euh, lu ñu koy waxee moom mooy la clé de voûte des institutions maanaam institution yëpp moom moo war a xool nan lay def ba institution yëpp bu ci nekk dox ci anam bi mu war a doxee mais ça veut que da ciy ñëw bokk ci mën na ci yebal nit ne ko demal juste pour teewal ma pour xoolal ma lan lañu ñu war a soxla lan la ñu war a lan la ñuy jooyanti loo xamee ni dinañ ko mën a lijjanti ñu mën ko lijjanti à niveau ci lu jëm ci lu mën a doon muy ci wàllu koom mais tey par exemple lii gën a euh, naqari yenn ci ay sénégalais ba ñu jàpp ni dañoo politiser mbirum justice rawatina yenn ci ay magistrat mooy lan dañuy jël ne nii tey am ay consultation à domicile nga xëy ñu ne euh, Cheikh Diop moom tegoon. Euh, président cour suprême wala président wala juge d'instruction euh, ci tribunal nangam nga xëy parce que nee nañu ni am na benn dogal bu mu jël boo xamee ne neexul ñenn ñi ñu nekk ci régime ñu changé kooku euh, yóbbu ko ci beneen juridiction boo xamee ni maa ngi koy wax démb ñam fara àtte du ñi nga xamee dañoo sàcc xaalis wala luubal koppar wala yenn entreprise yoo xamee ni defuñu lu ñu war a def wala ay nit ñoo xamee ne ay politicien lañu wala leneen yu ñu jàkk yu ñu indi seen kanam mais ñan la war a àtte sàcckatu ginaar bi euh, euh, ki sàcc benn xar wala ñaari xar ñooñ lay àtte day mel ni dañ dañ lay euh, minimiser par rapport ak yow jàng ba nga jàng ak li nga xamee ne xam nga ko donc il faut nécessairement que sur ce plan-là accords yi nga xamee ne am na conclusion yi nga xamee ne jël nañ ko ci assises yi que ñu mën ko appliquer et c'est ça le plus important parce que y a eu des conclusions 2018 ci ay waxtaan yoo xamee ni jëmoon na ci wàllu justice am na commission nationale de réforme des institutions boo xamee ni teg nañ ko fi mu am liggéey boo xamee ni bu mucc ay bu mu defoon ci wàll woow mais le problème qui s'est posé entre yooyu yëpp mooy ni il n'y a jamais eu d'application ou en tout cas on n'a pas senti une euh, yi dañ ko jël ranger ko dans les tiroirs et c'est ce que disent même certains magistrats yoo xamee ni ak yenn ci ay justiciables ak ñu yëngu ci wàllu justice euh, ci euh, assises yi ñu nekkoon dem lii nii yëpp nag nañ ko bañ a ranger aussi dans les tiroirs nañ ko appliquer doxal ko li ñu war a soppi ci justice ñu ko très rapidement et ça pour le bien des justiciables que nous sommes.